bokk jullit yi bokk bi xanaa bi leen nuyoo yéen ñëpp baal àq baal leen àq ci jullit gi ñu génn ñu desiwaatoon tuuti rek ngir ak leeral boo xam ne danoo jot fi ñu fi ñu nekk ci Angleterre sëñ abi bu sëñ Fallu moom ma woo di jëmm joo xam ne nag naka jekk waaw yi ñuy bay ci xotaam noo ko àndoon mu ngi liggéey sëñ Tuubaa di ko bañ lee lim bañ di ko bëgg lim lim bëgg man nag dañoo am mbett mu naqari lool ci daayira bu ñuy wax xidmatul xadim nekk njaboot sëñ Tuubaa yàlla dogal ñuy ay fore ñëwoon siyaar sëñ Muntaxa jëmbat ay garab ca kër sëñ Tuubaa ga ba noppi di siyaar yi sëñ Abdou Karim ci biir cant ga nag ñuy feeñal seen mbégte ak seen cant di sant sëñ Tuubaa doon wax jërëjëfi sëñ Tuubaa jërëjëfi sëñ Tuubaa ñu filmé ko tasaare ko mu mel nag seen kilifa da caa jot ba woo leen ñoom ñëpp xam nañ toll ajjuma bii huit mu woo leen ngir war a sanctionné ci loolu ñu def ni sant Sëñ Tuubaa gi loolu nag ñun ñëpp ñu am ci naqar am ci mbett am ci njàqare am ci dem tiitaange ndax réewum Sëñ Tuubaa réewum réewum ni mu demee di réewum jullit Sëñ Tuubaa li mu liggéey islam nga xam ne xeexal islam ak. liggéeyal suñu borom ak liggéey sala sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu génne ko yóbbu ko fa ne fitna bi ñuy teg ko ngir ngir ngir dundal diine ba ñibbi si nag yoon wi gën a yokk ak njabootam di sant ñu leen sanction loolu jaaxal na ma a ak lu ko waral dëgg-dëgg réew moo xam ne góor jigéen bu mu fa jàpp ñu bàyyi la wutal lay kay yóbbu la bitim réew ngir wax ne lii dagal na te yàlla bañ ko yonente bañ ko diine bañ ko ngor bañ ko lépp bañ ko jómbul ñàkk taw yépp loolu la ko waral ndax wayefal diine ak wayefal lu baax ak xeeb eh, jéem a deteel nit ku baax loolu nag danoo metti lool fi mu toll nii daaw ñu ngi ñu ngi kër kër yi yi ñu ngi ci wax kilifa yi diine yi lu ne di koy ko Seexul Xadim di koy ko Alhaji Malick di koy Saïd Nour eh, Seydina Omar Tall ñëpp ñu leen di xas te kenn taxawu ci état taxawu ci kenn taxawu ci bu kenn ku kuñ laal ci ñoom nag ñu daal ci sa kaw kon kilifa ñoom ku laal état wala kilifa nguur ñu jàppal gis nga police kii fi mu jël rey nit bëkk dem rek teewul ñett fa ñu jàpp te daaw war nañu ñu ngi ci loolu toog nañ ci président ku ne wax nañ ci ak moom boole nañoo ki police waaye dara dara saafara ko ma bëggoon nag nun taalibe Sëñ Tuubaa yi nu taxaw ci dem te saafara ko lii metti na naqar na am na ndaje moo xam sax maa ngi fii waaye incha allah façon na ma faa fekk ca Ndakaaru le 23 daañ dajale tali bi sëñ Tuubaa yëpp ñu génn ci mbedd bi naqaru lii ak seet nañ koy saafara su ko nguur saafaru noonu dañ ko saafara suñu bopp incha allah wasalaamaaleykum